depuis démb ba tey ñëpp rek doon félicité kii di Bassirou Diomaye Faye ci résultat élection yi yeneen i candidats yi sax daal nañ koy daal di félicité wante mu desoon xam ne moo di Amadou Ba nekk candidat bu coalition benn bokk yaakaar ñëpp nag doon ko xaara ba taxoon Madiambal Diagne daal di woon xam ne rax ni ki nga xam ne moo di Amadou Ba dina woo Bassirou Diomaye Faye daal di koy félicité finalement nag dëpp ba tey ñu ngi koy xaar wante kii di Amadou Ba daal nay woo Bassirou Diomaye Faye daal di koy félicité. jàppale ci victoire bi ci premier tour ci résultat yi nga xam ne sax naka naa moo daal di génnagum résultat yooyu daal di favorable ci Bassirou may Faye mu mel ni sax nag moom Bassirou may Faye daal ne daal di gagné li nga xam ne moo di élection yi donc mën nañu xaar rek moom moo fas yéene nekk cinquième président de la République du Sénégal Amadou Ba nag daan nañu daal di xam xamle rek ne daan nay woo Bassirou Diomaye Faye daal di koy félicité bu sukkandikoo rek ci porte-parole du gouvernement ginnaaw félicitation bu Amadou Ba sax ñenn ñi nga xam ne daan nañu daal di bokk ci APR tamit daan nañu commencé rek di félicité ki nga xam ne moo di Bassirou jommay Faye ci mel ni Doudou Ka nekk ancien ministre de l'économie du plan et de la coopération du Sénégal moom moomay daan nañ daal di félicité ki nga xam ne moo di Bassirou jommay Faye ci ndam li nga xamante ne si moom la daal di am ci élection yi ci communiqué bi waa benn bokk yaakaar daal di fësal Amadou Ba di ci félicité Bassirou Diomaye fay nee na ko au regard des tendances des résultats de l'élection présidentielle et en attendant la proclamation officielle, je félicite le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire dès le premier tour. Je prie le Tout-Puissant lui accorde l'énergie et la force nécessaires pour assumer cette haute fonction à la tête de notre pays. Je lui souhaite beaucoup de réussite et de la succès pour le bien-être du peuple sénégal kooke di Amadou Ba nekk yi nga xam ne ci génn moom moomee nag mu daal di félicité ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye Serigne Cheikh Conté ñëpp ràññee ko ci réew mi muy le grand marabout la nga xam ni nag fajum cosaan yëfam la réew mi dañ ko cee ràññee xam ko ci muy faj nag di dimbali doomu aadama yi ci xam-xam bi ko yàlla seddee nga xam ni yàlla mooy maye yàlla daal di nag yëkkati xam-xam daal di koy may mu ci dimbali doomu aadama yi lu baree baree baree baree bare ba réew mi yëpp xam ko feebar bu la jaaxal lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg boo jëflanteeg moom feebar ba feebar bi ak lu ko mën a sabab dala koy dindil ba mu set wicc ci sa yaram listixaar gi nag ay la muy gis nga ñëw toog mu wax la sa démb wax la sa tey wax la sa ëllëg jàppale la digal la ay sarax leeralal la sa yoon kenn du sëriñ Cheikh Konte dina la jox ay cangat yu baax dina la gunge dina la ubbil sa wërsëg dina la defal kaaraange taxawu la woo leen ko ma nga nekk HLM 1 ci numéro bii di 78 397 65 93 mbokk yi sëriñ Cheikh Konte konte ngi noonu dimbali jaam yi dong la fi nekk